la ilaha illallah la ilaha illallah ansibillah mina seytaane rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu leen siyaar di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru xalifa général ku lu murit yàlla na fi yàgg wér sëriñ am di Modou Mbenn xalifa bu maam Cheikh Ibra yàlla na fi yàgg ta wér di siyaara bu baax sëriñ Abdoulahi Fall xalifa bu sëriñ Mortala yàlla na fi yàgg te wér di siyaar bu baax sëriñ Abdoulahi Jaxate ak eh, njabootu sëriñ Bay Jaxate gépp rek hmm, bu ñu ci tuddee ku mel ne eh, sëriñ Sooy bu Jaxate sëriñ mbay sëriñ Moustapha sëriñ Sooy bu yóbbaale na njaboot gépp eh, ñu nekk ci pàkk bu barkeel nag di Xuru Mbàkke di dëkk boo xam ne dëkk bu yàgg la Euh, mu mel ni sëriñ Momar Anta dëkk bi mu njëkk sañc sanc mën nañ ne Xuru Mbàkke ci la bokk euh, li waraloon sanc googu mooy lan euh, ginnaaw bu Serigne Touba ganee jamono Mbàkke ba am juróom benn weer la Serigne Momar Anta Sali jóge foofu ñëw njax njax dëkk la boo xam ne Ahmadou Binta Kan ma fa nekkoon ak soxna Anta Sali Kan mi jur Serigne Momar Anta Sali ñoo bokk lépp Euh, mu mel na ci cosaan nit daana jóg di fekk nijaayam loolu amoon na bu njëkk mm, bi mu ñëwee mu ne ko ginnaaw da ngaa yor ak jur ak ay donga man ma yur ak jur ak i donga euh, fii mën naa xaw a xat fi nun mm, daa di ànd ak moom dox ba jéggeew xur lu mat un kilomètre daanaka daal di ko sancal foofu 1852 ñu doon ko wax njagu mag ak njagu ndaw waaye biñ doxalee tuuti ba 1853 dëkk yi faral noonu buñ bëggatee li ñuy jëfandikoo ci xur naan demal ci xuru waa Mbàkke ñi loolu cosaanu xuru Mbàkke mm, biñ fi nekkee ba 1854 jàpp 55 mm, am ko fi ganee jamono ñu naan ko sëriñ Abibulaahi mm, waaye nag moom ci tuut tànk la fi des ñu denc ko fi euh, mu mel ne kon ci tënk euh, dañ fay nekk 52 ba 63 52 ba 63 loolu lañ def xuru Mbàkke Eh, dëkk bii di xurum Mbàkke nag gent ci biir loole Serigne Touba nee na eh, loolu ñu naan wat mbooto xurum Mbàkke laa ko defee eh, daaraam jii nga xam ne mooy daaray waajuram it Serigne Mamar Anta Sall doon fi jàngalee mën nañ ne fi la fi la fi la dala jàng mën nañ koo wax ndax nit ki bu fekkee da an ne ci dëkk sa waajur jàngalee foofa nit ñu bari ñëw di jànge foofu kon mën nañ ne foofu nga dale loolu loolu loolu loolu loolu wér la waaye ci tënk bi dëkk bi gente 63 mm, ñu dem nag ba Serigne Touba dem ba doon mukallaf ba dem ci tukki bi ne Abibullahi ca nja di xur Mbàkke daf may feeñu naan ma ni nga mujj jamono su ma ne la mujj woon jamono euh, du ma wéete ni ma wéete bi sëñ Tuubaa demee njëriñ 1912 ñu teg ci yeneen juróom-benn at di 1918 mu yabal Serigne Mbaye Jaxate ak maam Cheikh Rama ne leen dem leen wétti li ji Abibullahi ca xur Mbàkke di nja ndax day laaj wéttal euh, Serigne Mbaye Jaxate moom nag la ñuy defal bis bis boobu mi ngi dëppoo ak juróom-ñetti fan baraxlu juróom-ñetti fan baraxlu Mm, nga xam ne weer bii eh, ñu ñu ñu ñu ñuy dëgmal mm, nga xam ne tey la premier eh, mën naa nekk le dix huit mën naa nekk le dix neuf mooy ci weeru février bii mm, kon bisub cant la nag bisub cant Serigne Touba dañuy sant la Serigne Mbaye Diakhaté Serigne Touba. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen nuyu ci turu Serigne bi nee ñu ngi leen nuyu ci turu Serigne bi Serigne bi nee mi ngi leen di ñaanal yàgg fi lool te wér ne màggal gi mi ngi koy soññee ci cant gi sëñ Mbay Jaxate bëgg ko ci dimbali sant le ko sëriñ Touba bu sant gi jàllee itam lëg fii Maam Mor Anta doon defan daara di jàngale alxuraan dañ koy liggéey te tàmbali nañ ko pala bi ñëw na mu bëgg nag képp kuy ñëw li ngay barkeeloo ci liggéey bi ak sasu addiyee yi mu yóbbu ci sëñ Muntaxa ñu fa ñu def ko ci sunuñ xel ba bu ñuy ñëw nu bañ ko bàyyi ci ginnaaw indaale ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak ci réew képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah foo mën a nekk képp koo xam ne soppee nga ci dëkk bi la ngay soppe Sëñ Mbay Jaxate képp koo xam ne wëllëre nga wala nga dib taalibe bi ak foo mën a nekk ñoo ngi lay nuyu te di la siyaar te di la balaax nuyu bi ñu jiital nuyu bi ak siyaar bi itam ñu jël ko lépp jiital ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na yàlla yokk aw fanam te yokk ak wéram ba naal yi muy naalal borom tuwaay yëpp mu àggale ko te naandu ko moom gannaaw nuyu boobu nag ak siyaar boobu itam xanaa lii bokk yi wax rek. fàttali bis boo xam ne ñu baree bari bàyyi nañ ci xel fàtte wuñ koy fàttali nag euh, dafa mel ne mënul ñàkk ñu di ko def wasakri nafaati dikre moo tax mu mel ne fàttali moom mënuñoo ñàkk di ko def ala kulli haal waaye bis boobu nga xam ne ñun ñoo ko waa réew ñoo ko bokk euh, muy bis boo xam ne lañ ci jublu woon <coughs> mooy Euh, fàttaliku fàttaliku mm. fàttaliku nag bàyyi xel ci ku fi nekkoon te nekkatu fi wala ñu fi nekkoon te nekkatuñ fi ñi fi nekk seen gannaaw di leen fàttaliku di leen bàyyi xel ni ñu leen di fàttalikoo itam lu weesu di leen ñaanal ci jàng alquran ak jàng xasida ak sikrullahi lu ci waay man ak ay salawaatu ala nabi yooyu mooy lañu leen di fàttalikoo ndax moo doonoon seenu dund kuy fàttaliku nit nag lam doon dundee ca ngay delloowaat sa xel kon loolu lañ leen di fàttalikoo euh, ko googu ci biir fàttaliku googu ak ñaan googu nu ñaanaale ci nag suñu yitte yi bopp te yàlla te moo te bokk na ci suñu yooyu nag mooy yàlla dolli jàmm ci réew mi ak réew yi jullit yépp loolu ba ca des mooy sant sant nag sëñ Bay Jaxate daf ko yàgg a def te doon ko batale wax ne ku mën na ñëw santale ma ku mën na ñëw tàggale ma sëriñ bii ndaxte may na ma lu sama xel mosula daj waxoon na sëriñ bi fas naa la yéenee sant faaw dëgg fa nja ak cant goo xam ne dootul dog ba àjjana ja yoo xam ne sëriñ bi man su santee sant bay bëgg ba muy fab yëfam di ma jox muy fab ay muy fab yëfam di ma jox ngay fab sa yëf di ma jox yi mu yitte doo xam a ba gannaaw nag noonu deme mooy cant gi nga xam ne moom lay woote eh, mu wootee mu wooteel ko boppam itam ci kuy saa xarit mbaata ngay saa mbokk foo mën a ne noonu la ko waxee woon kuy saa xarit ngay saa mbokk foo mën a ne ñëwal may ma liggéeyub cant mbaa ma bala daal di wax ne kuy saa xarit mbaata ngay saa mbokk foo mën a mën foo mën a ne ñëwal tamit ma liggéeyub cant da da la ko daanee daal mooy foo ku dikk bayle ma boo lootee ma bay li si la waaw may yaa ngi may wër te may goo seeru sas la wu ku dikk bay li ma nag boo lootee ma bay si la. kon lii mooy cant gi lii mooy bés bi ñoo ngi tàllal bokki jullit yëpp loxo ñoo ngi tàllal ñëpp loxo képp koo xam ne kii daal dégg nga sunu kàddu kàddu gi nga déggee ci noonu mooy sa sa carte d'invitation bi ñu la yónnee ak foo mën a nekk nag kilifa goo mën a ne euh, di sant bu baax nag rajo bii nga xam ne mooy télévision rajo Lamp Fall ñoom bu ñu santee lépp bu ñu santee médias yëpp ba noppi itam moom mën nañ koo beral ak sant ndax ñoom kat damay faral di wax ni ñoom dikkuñu fi rek di jàppale di di di di di di di jottali ay xibaar waaye dañ fay jëf lu taxaw loo xam ne ku dugg ci dëkk bi boo tolloo ci mbedd mi moom ngay jëkk seen liggéey bi ñoom ñoo ko jiite woon ba mel ne mel kon mu ne su leen ñàkk beral sant googu euh, yàlla na liggéey bi nag fu ñu bëgg mu àgg fa rek yàlla ko yàlla yëkkati ba mu gën a kawe foofu. ci barke borom Tuubaa si xeebër ndax mën na lépp kon ñoo ngi sant mboole média yi fi jaar waaye nag ñoo ngi leen di beral laatuk sant itam yéen ñi fépp fu ngeen bëgg liggéey bi àgg fi rek yàlla na ko yàlla yokk ba mu ba mu kawe sunu njort ñun ñëpp bi jaay soxla Xaadim jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Mm, sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax kàddu yi ku ko dégg xam ne tegu na ci xam-xam te nopp mën na koo dégg eh, kon ci ndigalu sëriñ bi ba tey rek. Eh, ñu ngi woo ci bis boobu yi waa kër Serigne Mor Talla gépp rek ni mu ko waxee bu ne kër Serigne Mor Talla Fall rek yóbbaale na kër Cheikh Ibra gépp mm, di ki nga xam ne tamit mooy musalam maire Mademba Diouf ak commune Dala Ngaw bépp di woo tamit Serigne Cheikh Gadiaga musalam maire ak euh, commune Ngay bépp rek di woo tamit musalam maire Kani Bey mm, ak ak ak bépp rek ak waa kër seex Mat Bamba yëpp ak waa kër maam Cheikh Ibra Fall ak. ak Cheikh Baara Guèye Cheikh Baara Guèye Darou Naim moom it bi mi ngi ko yëgal bis bi mm, ak mboolem notable yi nekk fi wuñ kenn ak jàngkati alxuraan yi buñ ci tuddee ku mel ni sëñ Mor kan rek moo mel ne eh, yóbbaale na lépp ñu ngi sant yàlla bu baax nag di sant eh, Lamp Fall leeral ndax buñ nekk kër sëñ Mor Talla ne kër sëñ sëñ Bay Jaxate benn lañ kon alali kër sëñ Mor Talla alali kër sëñ Bay Jaxate la ndax maam Cheikh Ibrahima Fall. ak Serigne bay Jaxate seen ñaari maam yi ñoo bokk benn baay dafa dut xaj waaye buñ ne ku bu ne buñ ne buñ ne bu ne kuli ma ndesit moo jur paati kuli moo jur sayar kuli paati kuli moom meññ jëm kër Cheikh Ibra sayar kuli mooy maam yi Serigne Mbaye Jaxate waaw da dut xaj ci émission waaye kon dama koy leeral ba mu leer mm, kon daal loolu lañ doon wax bokki teel bi ne ko ñëpp maa sa bàyyi xel atub euh, Serigne bay Jaxate nag bu nu fi teewee Serigne bi yëkkati na ay walafal waaye nag dañoo bëgg a barkeloo ndigal ndax yéen ci ndigal ngeen fi ñëwee ndax yàlla doon na bi ngeen ñëw laaju leen dara kon ndigal leen tax a jóg kon walafal woowu day walafal wu riis woo xam ne fu ne mën na faa dugg moo tax Serigne Bay Jaxate dane baatum ndigal fu mu rot gaawal te dem fori ko ku yéex a topp ndigal doo seeru mooy tone ji ca wala way ñëwti fi ne lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fab njariñ jox ko te toppul ndigalam kem loo defal nag sab sëriñ am lu na toll ci njariñ loo defalu nag sab sëriñ boo ko bëggee doo ko am ab terata ñàkkul dara waaye ku saytuwul dara du am ca njaaya dara lii mat xam te mat gëm ku jóg ba dem fi teratang te yóbboo dara du bëgg tepp sëriñee ab teratang du jox du joxe ci neen yëfam boo déggatee yow seen ndaw soo xam ne moo gën sëpp ndaw loolu nag bu ko suñ bay di du jigéen àddina ndaw loolu bu boo déggee mu koy wax mooy fu mel ne àjjana xeetu loolu moo tax mu ne boo bëggatee yow seen ndaw soo xam ne moo gën sëpp ndaw bul daw di yem ci soosa ndaw dawala daw wutik canam boo bëggatee ci sa sëriñ lenn njariñ jox ko njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam waaye ku yor yëfam nga yor seef ba noppi nag làq seef di laaj yëfam yaa gën a dof na kon sa xel du ko xalam bul jaay sa bopp bu ko nax xamal ne kat deesu la jox lu li ngay jëfa ko wax ak dëgg rek am xorom bul jëw saxla loo jiwul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 sawara ak moye ci jëm ñaari barab yi boo ci jëm dala di sóobu am ngiram ablar na bay rek ku sasam te bañ a soññab añam jëkk di soññab añam te bañ a bay gàccee macam bàyyi la bay te muñ a muñ ngir ñi ngi lay togg lañ baykat bu ñu togg lañ na yittewoo rek mbayam mur lulul ak bàyyiku ak soññ boppam waru ko yow jëbbalul te bàyyiku ñëpp sab sëriñ aw ndigalam kon loolu buñ teewee ci pencum sëñ Mbay Jaxate day yàlla ñu yëkkati ci ay béyt kon daal ñu ngi tubb bu baax tey jégalu tey sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi ciy woo bokki teel bi association ànd defar xuru Mbàkke et dëru Mbàkke ñoo ko fi sumb lu ci waaye di barkeeloo numéro Baye Talla Diagne yi ma joxe woon nañ ko ci dugal daara yi Serigne Mamar Anta Sall jiit nga xam ne ne man nañ ne Serigne bu Sëñ Touba dal na fi jàng moom it Serigne Abdou Diakhaté mii di xalifa Sëñ Bay Diakhaté am na ndigal ci Sëñ Mountakha ba teg nañ xeer ba tàmbale rek a ci des ñu ngi fey mool xam naa semaine bi bal koo génn sëñ bi jo na ci ndigal ba soo yàlla danañ ci jublu tey jégalu plan bi lépp ñëw na di siyaar sëñ Bayam sëñ Moustapha mi nga xam ne lii di wàllu communication bi dafa am lu mu ñu ciy dénk ñu ciy nam na bi bu ñu ko dénkee nag dénk nañu ko sëñ Mortaal gépp jërë ngeen jëf laa ilaaha